وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني بحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بكي جولجي بكي تلسبكتاتور LCS لا شين سنغاليز لا تيلي باسيونيمون ديل سوات ناني اك يين سين ايميشن بو ماك تبارك الله موي اتو دارجي ñun nuy leen ziyaara leen jiital ci nuyoo bi këru kilifa yi ci diine ji suñu kër maam cheikh nasi asadu abi radiallahu taala anhu suñu kër maam cheikh omar fuutiyu taal radiallahu taala anhu suñu kër maam seydil xaaji malik si radiallahu taala anhu suñu kër maam touba khadim xadimal mustapha radiallahu taala anhu suñu kër maam bu kunte njaasaan radiallahu taala anhu suñu kër maam abdallahi ñas kaolack radiallahu taala anhu suñu kër maam amari ngoone ndak sekk cana ba tabarakallahu suñu kër maam ahmed njegante suñu kër maam ahmed siise pir fa tabarakallah ak mbooleem këru kilifa yi ci diine ji fu ñu mënti nekk ci biir réew mi ak ci biti réew mi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen balu xaq di jël nuyoo bi teg ko ci loxol xulafaa yi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla doole leen kartanal yàlla doole leen taxawu aar leen sàmm leen ba seen liggéeyu maam yu sell ya fa tabarakallahu ñu yeggale ko ci anam bu mu gën a rafete bi xurmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar yi nga xam ne yépp fa tabarakallahu ci anwaar yi ak fuyudaat yi ak asraar yi tabaarakallaahu yàlla euh, defal leen ko rek mu gën di baaw di gën di landi fa tabaarakallaahu ba jàmm yàlla yi mën ko jariñoo yàlla na ko yàlla def fa tabaarakallaahu euh, nuyu téléspectatrices yi ak téléspectateurs yëpp soppeeg yëpp ñi nga xam ne ñi ngi bëgg émission bi Thierno Sall tabaarakallaahu suñu wëllëre euh, fas Mbaaw tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu ziar leen kontaan ci ñoom ak i tamit euh, ñi nga xam ne yëpp fa tabarakallahu dañuy bàyyi seen soxla yëpp bu waxtu wi jotee ngir yàlla ak teewlu waxtaan wi euh, na Fatima euh, depuis Rufisque fa tabarakallahu xam naa sax mu ngi recommandé ci ñuy gën di xuus ci waxtaanu fiqh bi rawatina ci fi nga xam ne tolloon nañ fa ci wàllu dépense nga xam ne góor la sharia gàll ci loosam mu amee ko fa tabarakallahu dinañ ci ñëw bare ñu ngi jàngoon nañ ci euh, ñi nga xam ne par exemple tey dañ leen a fase waaw passé mi euh, moo xam passé euh, talaaqul rajaiya la nga xam ne pasem payli la ak talaaqul baa in nga xam ne passé mu dog la nga xam ne kenn mënatu ko réparé waat lu dul xëy na baada ji rek waaw su ko defee nag dépense yooyu loolu lañu ñu war a jàng ndax Eh, jëkkër day continuer di ko ameel soxna si ba léegi wala déet li ci borom xam-xam yi wax incha allah dinañ ci eh, ñëw fa tabaarakallaahu ah ndokkeel leen tamit ci weer wi nga xam ne dugg nañ ko muy baraxlu wi di Chaabaan nga xam ne fa tabaarakallaahu nag eh, buñ ca jógee rek dañuy dugg nag ci weer wu màgg wu tedd wi muy shahru Ramadan di weeru koor wi fa tabaarakallaahu gis nga Mariam li tax. da ngay dégg ñuy wax ne baraxlu weer wi dafa gaaw ba ñu naan dañoo gaafal takk ci sëy ndax ni weer wi gaawee noonu la sëy bay gaawee yàqu fekk or ka déedéet waaw parce que weer wi bu jeexee rek dañuy dugg ci weeru xiifal gi moo tax waaw diggante boobu nag kalaasu alasaan gi affaire bi day gaaw ci ñoom parce que yàkkamtiwuñu weeru koor wi <laughs> loolooy tax mais baraxlu loolu aada la rek du dara takk ci sëyeeg def ci daraak yëpp fa tabarakallahu baax na parce que weeru weeru sell la muy chaabaan bi waaw bañ na ko ba quinzième jour bi mooy nisfu chaabaan dañ koy baaxoo woor ngir màng yiw yi ak ba yi nga xam ni moo ci nekk waaw bu jeexee rek nag dugg nañu ci weeru koor yi fa tabarakallahu loolu mooy li ci nekk su ko defee nag à iche moom ci biir weer wii la daan préféré fay ay bori kooram yi mu amee woon ci koor gi paase waaye nag ku ko yàlla mën loo koor gi nga génn jeex tabaarakallaahu yàggul euh, nga fay say bor itam fa tabaarakallaahu baax na waaw mais moom Sayyidatuna Aïcha euh, téere yi indi nañu ne moom ci weer wii la daan fay ay bori kooram ndax ku ne xam ne ni jigéen tabaarakallaahu euh, léeg-léeg ngànt dikkal ko su ko defee nag mu woor weer wi ba mu jeex takk te amu ci benn bor du yomb léeg-léeg ci jigéen waaw loolu moom euh, lu leen yàlla teg la fa tabaarakallaahu su ko defee rek incha allahu rabbunallah daañu ci gën a xuus euh, ndokkeeli tamit suñu soppe yële ca euh, Grand Médine fa tabaarakallaahu suñu wéyjur imaam Ahmad Dia Euh, ci seen daje bi ñu doon def biig foofa Grand Médine te ñu taxawee woon waxtaan wi foofa euh, biig ci guddi ñu ndokkeel leen bu baax a baax a baax doon waxtaane ci wàllu bennoo nga xam ne fa tabaarakallaahu sharia bëgg na ko lool ci diggante jullit yi fa tabaarakallaahu ñu doon ci waxtaan démb foofale ñoom Modou Fall Maguette Faye tabaarakallaahu Harouna Seck euh, sunu soppe fa nekk yépp ñu ndokkeel leen gërëm leen bu baax a baax a baax su ko defee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 أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين سنو برم سبحانه وتعالى ميغي لاج انا كن مو غنا مانا توñ ki may waja wax تبارك الله انا كن مو moo gën a mën a tooñ ci yàlla laaj min man kazaba ala llahi kii yëkkati ay kàcc di ko teg ci kaw sunu boroom yàlla nee maa ngi laaj ana kan moo gën a mën a tooñ kooku kenn yaa rabbi waaw li ñu tuumaal yàlla yàlla am na doom wal iyaadu billah waaw yooyu nga xam ni ay kàcc la yàlla nee maa ngi laaj ci gën a mën a tooñ kooku lay laaj kan la ñii ne Isa doomu yàlla la waaw muy nasaraan si ñii ne Uzayru doomu yàlla la muy yahud yi juif yi yàlla ni moo man lu may doyee doom lan laa koy doyee parce que doom wéttal la ci wéyjur te man yàlla wéetuma bay soxla ku may wéttali te itam aw ma soxna waaw ku amul soxna nooy amee doom nooy amee doom te man aw ma soxna ñii ne malaaka yi ay doomu yàlla yu jigéen lañu seetal loolu almalaaikatu banaatullaahi waaw yàlla ni yooyu yépp ay kàcc la du dëgg kiy def loolu nag kenn gënu koo mën a tooñ fa man azlamu mimman kazaba ala waaw déedéet kenn gënu ko mën a tooñ déedéet wa kazaba bi sidqi is jaahu mu weddi dëgg jamono bi ko dëgg dikkalee mu weddi ko yàlla yónni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ci dëgg waaw mu indi dëgg muy alquranul karim tracé ñu yoon muy sharia wi ñu war a jaar yow nga taxaw lànk kaare weddi loolu yàlla nee na kenn gënu la mën a tooñ yow wa kazaba bi sidqi is jaahu waaw weddi sayduna muhammad ne yàlla yónniwu ko weddi alquranul karim ne yàlla waxu ko waaw topp sa bakkan muy sa yàlla waaw topp sa bakkan muy sa yàlla li la neex rek nga xam sa yónnewul ci sharia sharia lii la wax nga ni man lii laa wax parce que loolu moo dëppoog sa bànneexu bakkan looloo la neex waaw léeg-léeg ngay gis ñoo xam ne bu ñu waxee sharia ñu ne sharia ñi ko bind ay nit lañu fekk déedéet même buñ jëlee ay nit dañoo am ay addilla yu wóor ay tegtal jële ci kàddu borom bi subhanahu wa taala waaw def istinbaatul ahkaam génne atte yi ci alquran ñii génne ko ci xadisu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkul seen xalaatu bopp lañu ñu indil ko nit ñi déedéet charia pire mooy alquran شريعه بير موي حديث سيدنا محمد بروم خم خم يي بند نك فوفا لا ني سكانديكو بيل واو نيوم كاي دانيو شرحال دانيو فرام فاتيل مو مي سورس بو بير القران لا سورس بو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون بوكو في بايي باي nga في القران بوكو في بايي باي nga حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم loolu rekk la kon dëgg la yenent bi dëgg la risaalaam dëgg la alquran dëgg la islaam dëgg la yàlla nee na nag gisuma ku gën a mën a tooñ kii nga xam ni mi ngi wut ay kàcc inventé ay waxam teg ko ci kaw yàlla kenn gënu ko mën a tooñ ki gis dëgg jàkkaarloog moom muy dëgg mu weddi ko itam kenn gënu ko mën a tooñ waaw te tooñ baaxul yàlla nee na azulmu zulumaatun yowma alqiyaama waaw wala sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ne azulmu zulumatun yowma alqiyaamati tooñ dafay jur ay lëndëm lëndëm kër ak bés pénc ci ke daan tooñ te foofa dañ fa soxla leer parce que li tax ñu soxla fa leer say jëf yu sell mooy nekk ëllëg sa lumière yow mal xiyaam moom ngay niitoo parce que yàlla day démonter jant bi waaw isa shamsu kuwirat démonter leeraayu biddiw yi wa isa nujumu kadarat waaw weer wi tamit mu far ko lem asamaan ak suuf kon ëllëg taxawaay bés pénc mariyam kenn ku ci nekk sa kamtalaayal jaamu yàlla na mu toll mooy nekk sa lumière moom ngay niitoo foofu moo tax ñi amul leer dañuy ñaan li ñi am leer na laat unzuruna naktabis min nuurikum qiila farji'u waraakum faltamisu nuuran waaw da ngay da ngay da ngay da ngay ñaan ñi am leer pour ñu pour ñu pour ñu jàkkaarloo ak yow pour xool la ngir nga mën a sàkkoo niitoo ci seenu leer ñoom parce yow amuloo jaamu yàlla bu sell bu la yàlla nangul bula la jural leer goo mën a niitoo foofu waaw su ko defee ñu leen hey dem leen ngeen wuti ji leer waaw dem leen wuti ji leer comme ñii ni ñu ko wutee woon te fekk c'est trop tard parce que mënatoo dellu àdduna mënatul nekk c'est impossible moo tax àdduna amul solo buñ koy wax mooy ne jaaruwaay la rek loo fi mën a am bés dana ñëw nga wan ko gannaaw loolu lañ ko ñàkkalee solo parce que bëgguñu yow en tant que jullit bi nga ngër-ngëri ci àdduna kër-këri ci ba sonn ba talloo jëf ju baax yóbbal booy yóbbaloo ëllëg yowmal qiyaam parce que loo ko jëndee jaru ko man baa nuuram bi du jaa fasa yan dem ki jaayi leer jënde ko lëndëm خل سد نكو رتش ولا سرم توبا خديم المصطفى وقت تتزود الصغار آه. الآخرة لير لا جام يال لير لا ويا أدنى أكل تبيرك بكن يب لندم لا كون بول جاي سا الآخرة جند كوسا أدنى لولو لن كون ياكل لي سولو مي سولو سي مو أم موي ني ليغي بريباري ألق يوم القيامة مي يوبل بو سل بو لا يالا نانغول fii nga koy préparé ci àdduna fii nga koy préparé moo tax Serigne Cheikh ne àdduna bu amul woon solo kon naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu rañaanee su fa jógee dootul dellusi waaw dootul dellu si waat ci àdduna kon foofa lay jaar rek daal de ñaan yàlla rek rek na ko fa yàlla téye benn yoon waaw waaye dellu si waat na dundi fi li mu fi dund juróom benn fukki ak ñett ba wuy ji boromam sallallahu alayhi wa sallam waaw su ko defee nag loolu bàyyi ci xel baax na yàlla ne alaysa fi jahannama mathwal lil kaafirin moo ndax damay laaj ndax nekkul ci biir safara dëkkuwaay pour yéefar yi akay ah, yaa rabbi li mu ñuy laaj moo ñu ko gën a xam waaw li mu ñuy laaj moo ñu ko gën a xam parce que moom moo bind safara prépareel ko ëllëg yéefar yi ñu war fa dem ñi weddi woon yonent bi weddi diine weddi alquran weddi yàlla yàlla prépareel na leen dëkkuwaay ca safara ba pare nag pour confirmer loolu di ñu laaj laaju gën ñoo xam li mu ñuy laaj alaysa fi jahannam maswa kaafiriin moo ndax dafa nekkul ci safara dëkkuwaay ba place pour yéefar yi weddikat yi ah kay am na fa di waaw am na fa waye gis nga sayyidatuna Maryam dafa am jangat mu am solo gis nga safar Abdul Aziz Dabbaax bitalif Ibris turando Cheikh al Hadj Abdul Aziz nee dafa melni comme kasso aduna yi rek nonu la safara mel waaw lu tax mooy kenn ku ci nekk boo fa duggee dafa am peine buñ lay condamné moom ngay tëdd moo tax jullit dina dem safara waaye du fa béel du fa sax waaw wa ma minkum ila waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya parce que il faut ñu ñu ñu fóot la tuuti bàkkaar yi nga defoon waaw mais am na nag ñu fa dul jaar yal nañ ci yàlla boole am na ñoo xam ne du ñu fa jaar su ko defee nag bu ñu la bu ñu la bu ñu la pine pen bi ñu la pinee boo ko tëddee bu jeexee dañ lay génne waat yóbbu la aljanna parce que jullit bi gëm yàlla gëm seyduna muhammad donte def na lu ko yóbbu safara su pen bi jeexee dañ koy génnewaat yóbbu ko aljana waaw mais nag am na ñoo xam ne yàlla moo ne ñoom xaalidiina fiha abadan ñoom dañ fay sax ba faw duñu génn te mooy ñi weddi yàlla weddi seyduna muhammad weddi diine ñooñu moom bu ñu demee safara xaalidiina fiha abadan waaw فلاني سخ فاو والعياذ بالله واي جوليت موم بو فكانتني ني ديفنا لونيكو بيني ألك تي بي سفارا بون كو فا دوغالي سو بن با جيخي ميغي ماني رك كي ني جاب تيج كو بريزون دال كوي دان 2 ans لا ورا تد ولا 1 ans لا ورا تد ولا 6 mois لا ورا تد سو كو تدي بو جيخي دنج كوي ليبيري واو نونو لا جوليت bu ñu pinee ci biir safara mel waaye du fa sax waaw du fa sax déedéet su ko defee nag yàlla ni wallazi jaa bi siddiqi seyduna muhammad la dëgg la Mustafa moo indi dëgg muy diiney lislaam waaw wa saddaqa bi ak ku ko mos dëggal ba keroog yowmal qiyaamati dëggal li mu woote dëggal risaalaam dëggal ni yàllaa ko yónni dëggal alquran dëggal sharia yàlla nee na ulaika humul muttaquun ñooñu ñooy way ragal yàlla yi pur ñooñu la waaw dëggal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangu risaalaam waaw ne yàllaa ko yónni dëggal shariaam dëggal dégg nga euh, limu indi yëpp wa saddaqa bi amna ñu wax ne cheikh seyduna abou bakkar la len ci borom xam-xam yu tafasir yi seyduna abu bakar saddiq taala anhu parce que mo daan deugal seyduna muhammad mom daawul sax hésiter luñ ko ni seyduna muhammad ko wax xam nga lu mu cey tek est-ce que moko wax kay lay set wala waxuko waye budé moko wax faqat sadaq budé moko wax rek dëgg moo tax keroog bi Seyduna Muhammad rañaanee jóge fa dem asamaan bi mu ñibbisee bi rumeur bi siiwee bañ ko waxee Seyduna Abubakar Saddeex dafa ni moom day bu dee moo ko wax bu dee moo ko wax xaw ma nag dañ ko ko waxal waaye bu dee moo ko wax moom dëgg la aw ma ci sax lu ma ciy xel ñaar wallaay ndeysaan fekk booba rañaan gi rek lañuy ñuy la ñuy werante ndax am na wala amul diggante Makka rek ak baytul maqdis Jérusalem parce que yonent bi dem na ci ci guddi gi ñibbisi te fajar xarul jotul te gëlleem weer la koy def pour nga war gëlleem jógee Makka dem baytul maqdis Jérusalem gëlleem gu gaaw dina ko def weer voyage bi yeneen bi dem fa ci guddi gi ñibbisi te fajar jotul loolu dana yéeme waaye nag du yéeme ndax yàllaa ko ko defal asra bi llaahu subhaana allazi bi abdihi laylan waaw te innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yàlla moom dara diisul ci moom subhaanahu wa taala waaw ay mbiram tarfatal ayni mu lijjanti ko taxaw fële moom jàpp njàmburam waaw yow kay yaay am programme tey lii laa programme ëllëg lii laa programme gannaaw ëllëg lii laa programme waaye yàlla moom programme am innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun moom moo programmeel Seyduna Muhammad jógee makkatal mukaram dem baytul maqdis jóge fa bëtt asamaani juróom-ñaar dem ba ci pays sunu borom ba jàkkaarloo ak moom loolu mu def ko ci benn guddi laataa fajar di jot Mustafaa dellusiwaat na loolu tewul sunu borom wa ma zalika ala llahi bi aziz wallaay ndeysaan waaw Seyduna Abu Bakar fekk rumeur bi rek mooy Moustapha jóge na bay euh, maanaam masjidul haram Makka dem Jérusalem moom Babacar ne su waxoon dem na ci la dellusiwaat sax ma gëm ko yonent bi ne ko effectivement loolu sax laa bëggoon wax waaw dem naa fa mi'raaj bi def naa ko Aboubacar ne ko dëgg la waaw moo tax ñu tudd ko ab Bakri Siddiq moo daan dëggal sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaay moo tax saay-saay ba Abu Jahl euh, bi yonent bi ñibbisee sallallahu alayhi wa daf ko ne comme yow dem nga baytul maqdis dellu dañu bëggoon nga wax ñu plan ba nu mu mel mbedd ya xur ya fa jàkka ya féete waaw pour rek bëgg koo bëgg koo bëgg koo daaneel foofu nag xaw na jekku sang bi sallallahu alayhi wa lu tax mu xaw ko jekku parce que yonent bi guddi gi la fa dem te deful visite dafa jaar romb waaw te foo visité wul du yomb pour nga euh, exprimer lu nekk fa mu nekk wane ko mënul nekk yàlla wax jibril ne ko demal nga foto plan wu baytil maqdis lu fay mbedd lu fay xur lu fay jànj fu ñu mënti nekk bunti yeeg jàkka yeeg tout nga foto ko jël plan bi indil ko sama waa ji sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jibril photocopie indil ko rasulullahi moustapha jàkkaarloog moom waaw lenn lu nekk sallallahu alayhi wa leeral mbedd yi xur yi jànj yi beeñ bi jàkka yi wallaay keroog fukki junni doomu adam tuub nañu ci saasi ne ko ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu annaka muhammadun rasulullah waaw fukki junni doomu adam keroog ci jataay ba tuub nañu dugg si ci lislaam moo tax nag yàlla ni wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaquun ki ñëw indi dëgg muy diineeg alquran di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñu war a tënku ci alquran parce que moom mooy euh, code de la route bi jullit war sukkandiku ak kaka dëggal ba yowmal qiyaam yàlla nee na ñooñu ñooy muttaquun yi mooy ñi ragal yàlla waa ñooñu lu ñuy am lu ñuy am ci loolu yàlla ni lahum ñeel na leen maa yashaauna lu leen soob lu leen neex fu ñu koy ami ëllëg inda rabbihim ci seen boroom muy aljanna ak xéewal ya bu dee góor ña ña nga ca xuurul ayni ya jigéen ña ña nga ci seen boroom kër ya ndeysaan waaw parce que dañuy wax ni jigéen Mariam góor gi mu mujjee sëyal ci kaw suuf bu ñu dajee aljanna seen relation wu sëy day continuer foofu ah ndeysaan day continuer moo tax boroom xam-xam yi wax ne bokk na sax ci li tax yàlla xaraamal jullit yi pour ne leen soxna seyduna muhammad yi seeni ndey lanu bu leen leen takk gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaye imaginer tey bu fekkoon ne loolu tey daganoon na en tant que yow saxaaba nga jël soxna yonent bi gannaawam ngeen dajaal janna war a continuer sëy bi Moustapha nekk biir aljanna di gis ngay sëy ak soxnaam loolu dana yéeme loolu tabaarakallah waaye faf yàlla sax ne leen soxna Seyduna Muhammad yi seeni wayjur yu jigéen lañu maanaam seeni yaay lañu xaraam na ci nag jullit mu takk yaayam waaw ah. jatal loolu su ko defee nag xéewal yooyu ñoom lay xaar ñoom jullit yi le aljanna ak yëfa nekk mba dexu meew yi dexu sàngara yi waaw parce foofu sàngara sa xaraamul doo ca màndi dégg nga aljanna moom Mariam dara lu soof amu fa dara lu naqari amu fa lépp a neex lépp a bakkane tabaarakallaahu waaw امين بحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتنا مريم نن يلنكو يلمي امين ان شاء الله اه چوني ام في ييب بو فخاسي دوغو جيخنا والله ندسان جيخنا دي موتاخ مام الحاج ابراهيم مساخو يلنا يالا ييسل يرم ديب دان واخني بلانغا باكو بايل ب دوغو الجنه ب لوجي ci sa dëkkuwaay foofa la foofa nag nga mën a bàkku mën a nag yaataayu mbay nu mu la neexee foofu waaw amul dem wanak amul sam bop day metti amul sibiru amul lijeenti ji ay keuyit amul xëy 5 h du matin dem bureau amul xëy 7 h amul amul dara amatul julli amatul wor amatul nat azaka mom dal xiiwlu rek xiiwlu rek a fa bernde rek tabarakallah fofu la bernde lande wa lo beug lahum ma yasha'una inda rabbihim waaw seex taalif mi jékki-jékki ne man sama xel tey michwee ci nekk subhanaka allahumma palaatu michu bi tege ci kanamam waaw waaw déet seex taalif melestikul ndànk waxuma ci àdduna de fo ci àjjana laa wax waaw àjjana laa wax loolu foofa la waaye du fii waaw fii moom Pape Cissé bu soxlaa palaatu ganaar wala palaatu michu il faut dépense lal ko mu soog a sotti waaye foofu moom subhanaka allahuma rek ngay wax waaw dafa nekk sa xel rek nga xef euh, euh, euh, xef a xippi jàkkaarloo ak moom waaw te boo lekkee ba suur comme li ngay li ngay suuri fii ci ci kaw suuf soxla génne ko déedéet dafay jékki-jékki nekk chaleur parfum buy génn ci sa nu mu tudd bëtt bëtt yaram yi waaw foofa lay génne muy poor yi ci sa yaram wi waaw nekk nekk euh, euh, gëtt gu neex waaw nga jékki-jékki yëg yëg ne woyof nga toy <laughs> wallaay seetal loolu ah waay waay waay foofu foofu foofoo yëf ya waay foofooy yëf ya tabaarakallahu aljanna waaw ah, foofooy foofooy mbir ma moo jara moo jara sonn lool tabaarakallahu waaw ah. yàlla nag ni zalika foofee aljana joojee xéewal yooyee jazaul muhsinin mooy payooru defkatu lu rafet yi ñu daan def lu rafet ci kaw suuf ñu daan rey seen bopp ci jaamu yàlla subhanahu wa taala ñu daan góor góorlu ci def ndigalu boroom yi waaw ñu daan góorgóorlu ci bàyyi tereem ya wallaay ndeysaan ñu daan góorgóorlu ci seen diggante ak seen mbokki jullit fexe musal leen ci làmmiñam musal leen ci loxoom ni ko seyduna muhammad jàngale al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi waaw jullit daal yoon ci yàlla muhammad nee na mooy ki musal mbokki jullitam ci làmmiñam ak ci loxoom doo ko lor ci sa làmmiñ doo ko lor ci sa loxo waaw nekk rek ay soppe nekk rek ay mbokk comme niñ ko waxtaanee woon démb ca Grand euh, Médine loolu mooy li am solo di waaw innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhwaykum maryama sharia sharia li mu jàngale mooy boo dee jullit kuy jullit ci àdduna bi rek sa mbokk la ku dul jullit rek du sa mbokk donte yéen a bokk askan du sa mbokk waaw maanaam ci sharia ci sharia moo tax abu ubaydata amir ibnul jarraax rey bàyyam bi ko jur ci xare badar parce que nee na jotewuma ak moom dara du sama baay parce que gëmul yàlla gëmul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kon nga gis ne kon innamal muminuuna ixwa innama adaatu hasrin la innamal muminuuna waaw yëgal li jullit ci rek ixwa ñooy ay mbokk جلد جلد أي مبكم المسلم أخوه المسلم منكم كنا نيوم نخمني دفكة الرفت لنجوان تكاو سوف سن بايور ألك موي الجنة أكلفنك أي خيول ذلك جزاء المحسنين يا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يالا دينا لين فرال لغنا نياو تلن دون دفت ci bàkkaar parce que jullit mënul ñàkk def bàkkaar waaye boo defee bàkkaar wëlbatiku jéggulu ko sunu boroom mu nekk nag jéggulu gu dëggu waaw goo xam ne day dellu ci charte ya mooy ngir rëccu ne bàkkaar bii ma def di jéggulu ko yàlla li des ci sama dund gi dootuma ci dellu yàlla baax na mën na la ko jéggal waaw xanaa xamuloo sax jigéen ji yor kartam di jaay boppam lu xaram loolu maara day taali bu jékki-jékki woon yàlla ñëw ci xolam mu tuub ko dem jàpp ba sell julli ñaari rakka tuur rongooñam ne yàlla maa ngi jéggulu métier mii may yoroon di ko def dootuma ci dellu di sama giiw dund yàlla lu ci wo diinem jàngi diinem yàlla jéggal ko ndax inna allaha yaghfiru dhunuba jamian yàlla neena damay jéggale bakkar yépp waaw bul bul bul nek ci bakkar dem ba yakkar ni yàlla mënatuloo jéggal abadan yow yaqku nga abadan upp na def la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jamia waaw naankatu sàngara beeg njaalookat baag ku mu mënti doon góor jigéen baag jamono bu sa xel nekkee ci tuub delluwaat ci sa borom ñaawteef ya nga nekk woon yépp nga fas yéene cee summeeku ba mu set bu nekkoon mbalaan la woo làmboo nga summi mbalaan ma sànni ci àll ba yàlla jéggal la lépp nga reprendre à zéro waaw li bon kay mooy lañ ci bàkkaar rek ba dee fekk la ca te tuuboo ko te kooko sax fuqahaa yi nee nañu bul ko gaaw a àtte bul ko jugé bàyyi ko yàlla boromam wa man yamut walam yatub an wisrihi fawwid ilallahi jamia amrihi waaw ki nga xamoon ci bàkkaar nga xam ni dundam li ko xam ne yépp mooy defkatu katu njombe la woon mu dee te yëgoo fu mu tuube génn ca loola fuqahaa yi nee nañ bul ko àtte jëlal ay mbiram yépp bàyyeeg yàlla boromam subhanahu wa taala waaw parce que nag boo neexee yàlla ëllëg mu jéggal ko loo ca man ndax yow yaay àtte wala yaay yóbbuwaate aljanna wala yaay yóbbuwaate safara waaw faalun li ma yurid yàlla moom lu ko neex def amul kilifa yoonam newu ci waaw yàlla lu ko neex def déedéet loolu moom fa tabaarakallaahu waaw bàyyi ci xel am na solo lool dégg nga de kon li yukaffira allahu anhum aswa alladi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladi kaanu yaamaluun te bu leen di fay seeni yiw yu ñu defoon itam daf leen koy fayee dégg nga nu gën a rafet nañ ko jëfe woon sax nu gën a rafet na nga ko jëfe woon yàlla bu lay fay noonu la lay fayee parce que yow ni nga toll nga defee la yàlla yàlla bu lay fay fayee la ni mu toll waaw fayee la ni mu day ndeysaan parce que sa doole nonu fofu la toll yàlla nak mom grandeur am ëpp na ëpp na dayo mom mu fayalal ni mu tollu rek wa tay euh bu sa bo amone tay xarit Cheikh talif nga am xarit bo xamne tay multimilliardaire la comme ni ngeen koy waxe mu amone xew ngénte wala set wala dara wa nga nab sa 1000 francs yi nga am wala sa 500 francs yi dem ndawtal ko parce que lolou noonu nga lolou nga am nga xew la yëgal ko mu yekati 1 million ndawte la la noonu la toll waaw moo yàlla subhanahu wa taala bokoy jaamu sa kem katan li nga tollol nga jaamoo ko ni bu lay fay fayela mom ni mu toll صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين كن min تفسير بي سورة الزمر فتبارك الله di kaddu borom bi subhanahu wa taala yàlla yàlla may deg ak top bi hurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam su ko defé rek ñu ñëw ci fiqh bi dajek rek ñuy ñëw ci téléphone bi mi ngok di nga ñu mëna jot fofu ci contribution yi ak laaj yi inshallah luñ ci yàlla jox euh lu mu néew néew néew ci luñ ci mëna léral ñu léral leen ko inshallah rabbuna allah sant tabarakallahu sunu soppi yëpp waa mbaaw salaamaaleykum waaleykum salaam asalaamaaleykum waaleykum salaam waa kay sang baal ñu yëkkati kàddu bi tuuti ah bismillah allo allo ah, salaamaaleykum waa kay bismillah sang tur ak foo ñuy woowee ah allo ah moom dafa mel ni retouram tabarakallahu dafa xaw a kii ci moom ñu ngi koy dégg waaye macha allahu taala euh, xëy na rek ci yëf yi la ndeysaan ñu jéggalu ci bu baax 88 euh, 628 dégg nga 71 71 nga yëkkati déglu ba ñu indiqué la nga soog a bés 1 incha allah mooy gën a yomb ci kattanu yàlla ak mbaaxam dégg nga de euh, suñu soppee yële ca mbaaw muy soxna Sukayna Fall tabaarakallah ak borom këram Mouhamadul Habib Bey tabaarakallahu ak waa daayira mahabatu rasul yëpp sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di ziara bu baax ndeysaan caal juma ji suñuy wëllëree la ñu pur fa tabaarakallah sëriñ mbaam ñambe ñang tabaarakallahu ak sunu baay Mouhamadul Amin ñang parcelles yi unité 1 ba 26 yëpp ga ñu dëkk ñu ngi nuyu ñëpp Liberté 4 tabarakallahu Caaroy macha allah taala HLM sunu doomu euh, bajjan El Hadj Babacar Mbay Fay ñoom ñëpp ñu bëgg ci ñoom tabarakallah Medina Jekko soppe yooyu yëpp le ñoom Babacar Mbay Jaañ tabarakallah ñoom Abdallahi Jaañ jamiya ba yëpp fa tabarakallah ñu ngi nuyu ñëpp fa tabarakallah euh, ñu doon jàng dégg nga dépense jigéen ñi idda wu lan la ci sharia wax idda buñ ko waxee mariyam mooy jigéen joo xam ne dañ koo fase dañ koo fase pase nag dafa am pase mu boroom xam-xam yi tuddee dégg nga talaaqu raja yi muy pasem pay li nga xam ni mata matagul ñetti pase nga xam ne mën nañ koo fay li ci dégg nga am bu ñu tuddee talaaqul ba in mooy passé moo xam ni moom toog na c'est fini parce que mat na ñetti passé wala jëkkër ja ba muy fase ñetti pase la nam ca pase ma loolu sharia dañ ko koy delloo passé nga ñu la la passé mi ñaata passé nga ci nam mu ndax benn wala ñaar wala ñett boo ne ñett su boobaa talaaqul baain la waaw boo soxlawaatee ndaw si gannaaw ba iddaam jeexee bala nga cee mën a jotaat il faut baada zawji te mooy mu amaat beneen jëkkër waaw loolu mooy charia euh, ak li ñu war jàng tey moo tax mu ne la boroom xam-xam yi fuqahaa yi dëppoo nañu ci ne war na dëkkuwaay ak dépense ci jigéen joo xam ne dañ koo fase fasam pay ni waaw maanaa góor gi nga xam ni wàcc na soxnaam premier pase la benn pase la su boobaa dëkkuwaayu ndaw si ak dépensam yëpp daf koy continuer di ko war ba idday ndaw si jeex loolu mooy sharia dégg nga moo tax min talaaqin rajaiyin wal xaamilu xatta la xamlaha bu dee ki nga fase soxna si bi nga koy fase daa fekk mu wann lor maanaam mu ëmb yaa ko war dëkkal yaa ko war a jox dépense ba keroog muy wasin ak jàmm foofu la iddaam di jeexe moom waaw foofu la wuuteeg jigéen ji ëmbul jigéen buñ ko fasee bu ëmbee iddaam nekkul ñetti règle déedéet mooy mu wasin waaw donte ci premier mois am lañ ko fase ci ëmb gi su boobaa iddaam du ñetti weer déedéet mooy mu wasin waaw moo tax ñuy bëgg bala ngaa pase nga laab lu ndaw si ndax ëmb na wala ëmbul parce que bëgguñu nga lor ko xam nga boobu idda dafa yàgg waaw moo tax itam sharia di bañ pour nga fase jigéen ci kaw ngànt boobu passé du pase parce que da day day indi euh, iddaam yàgg asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam waa kay sàng baal ñu yëkkati kàddu bi bismillah bismillah allo allo ah, kooku dagg na ñu jéggalu ci bu baax tabaarakallaahu euh, Pape fa tabaarakallaa nga bàyyi xel ci retour bi fii incha allah léeg-léeg day faible euh, du ñu mën a dégg kii bi bu baax fa tabaarakallaa di ci jéggalu mbokk yi bu baax a baax a baax waaw ah, kuy kuy kuy ñëw rek yëkkati sa baat mu xaw a jóg tuuti. Euh, aussi ñu mayaale ñu retour bi fii incha allah dina ci am solo pour dég-dég bi gën a leer di jéggulu ci crédit yi nga xam ni mu ngi dem te euh, jotu leen ni ngeen bëggee fa tabarakallahu yal na ko yàlla viré ci seen compte tuyaaba yi ëllëg bokk ci seen yiw yi leen yàllay fay yowmal qiyaam te mu yéex lool euh, ndax gars yi moom dee moom tout sauf ça wallaay ragal nañ ko lool <laughs> waaye lu mënul ñàkk la ala kulli xaalin فتبارك الله واي لي ام سولو ريك ديسان ا كوم نين كو جالي سونو ياي بي نيو جوغي ليغي فلي تي ليبرتي كات سخنا حوالي جان تبارك الله ديكو جالي بروم كرم بو باخ يالا يالا خارو كو الجنه جيغل كو اي رتش رتشم ييب فتبارك الله ا لي نيو فا واخ ريك موي ني موم كو ياو ريك غور غور تي جام يالا واو دي نيان ريك بو يفي نييو فك لا ريك تي لو نيه يالا اي على كل حال موم دينا نييو السلام عليكم ورحمه الله asalaamaaleykum tabarakallah kooku rëcc nañu nee nañ dégg nga de waaw moo tax loolu la sharia ay bañ asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw mbokk mi sëñ Oustaz Diouf. ñu ngi ziare bu baax kookan la. man la Omar Sall chauffeur ambulance yi ngeen. ah. Omar Sall chauffeur ambulance. Omar Sall. بسم الله سيدنا عمر شفر امبولانس بسم الله الو الو سيدنا عمر ديسان دا ملني ا دك دك بي مو خاو توتو خاو جافن توتي ني جيغلو تي بو باخ باخ باخ ديسان دنگ دي دا loolu moo tax sharia di bëgg nga làpp lu ndaw si bëgguñu nga gaañ ko bëgguñu nga lor ko ay yàgg waaye nag moom eh, jigéen ji ëmb moom wax dëgg kook moom iddaam yàllaa ko wax mooy tabaarakallaahu mu wasin la mu ëmb dégg nga moo tax nag eh, moom ki ëmb moom eh, iddaam moo xam dañ ko pase pasem payli moo xam dañ koo fase pase mu dog muy ñetti pase kooka moom du dañ koo ameel dépense ameel ko dëkkuwaay ba keroog muy wasin waaw parce que ëmb baa tax te mi ngi ci idda idda ji mënul jeex li fekk wasinul waaw moo xam itam dafa ëmb jëkkëram faatu du dañ koo ameel dëkkuwaay ameel ko dépense ba keroog muy wasin السلام عليكم الو السلام عليكم الو يلا يلا نغو زيار بو الحمد لله تبارك الله بار ني رتور بي في توتي باب باب يوكل ني رتور بي توتي فيبل نتي نون لول centre culturel bi. wallaay dëgg la ndeysaan ca bés. fa yal na yàlla nangu ziar soxna si ndeysaan. tabaarakallaahu ñu sant ko bu baax euh, ndeysaan mooy soppe yooyu ñu dajeeloon fële ca bésu sunu euh, kilifa muy Cheikh Lamine bu LCS la chaîne sénégalaise ca anniversaire ba ca centre euh, culturel bu. bele Senghor tabarakallah soxna ya ñoom soxna Fatou Ndiaye ñoom ñëpp ñu ndokkeel leen bu baax ca bis ba ziar leen bu baax fa tabarakallahu ak soxna Fat Diagne ak i tamit sunu soppe soppe Cheikhna Cheikh Saad bu Haydara Chérif fa tabarakallah ñoom ñëpp ñun ziar leen ndokkeel leen bu baax a baax a baax dégg nga de waaw gis nga euh, xam nga Mariam jigéen ji borom këram faatu buy tënj quatre mois di jours lay tënj du dëgg waaw waaye su fekkoon tey asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum allo tabaarakallah kooku rëcc na ñu jégalu ci macha allah waaye bu fekkoon 4 mois di jour yi mu war a tënj yàlla dafa àtte woon bi borom këram di faatu fekk moom dafa ëmboon yàlla def mu am 40 jours rek wasin idda ja jeex na dootul dootul dootul dootul dootul matal 4 mois di jours yi déedéet waaw te su boba nak dekk wayam ak dépense am ak yépp du té dañ ko ko amel ba kërok muy wasin nga set mbir yi noonu lay démé waaw lima la wax hadith la bo xamné ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maye na soxna so xamné borom kërëm bi mu faato muy soxna su tuddu subayata al aslamiyya bi nga xamanteni borom kërëm euh mi ngi faatu faatu na ba am 40 jours arbaina layla ci yàlla dogal mu wasin dañ ko labataat seyduna muhammad ko maye waaleykum salaam wa rahmatullah waa kay ñu ngi sant yàlla alhamdulilah mbokk abdullahi abdullahi bismillah sëñ abdullah tabaarakallah bismillah wallaay euh, allo. allo waaw ñu ngi lay dégg bismillah bismillah. waaw su nuyu lislaam. Mhm. booy nuyu da nga war a wax ne asalaamualeykum. wala mhm. danga war a wax ne salaamualeykum. wala da war a wax. salaamualeykum. waaw kay ndeysaan tabarakallah asalaamualeykum la ñuy nuyoo waaw asalaamualeykum la ñuy nuyoo boo ne asalaamualeykum am nga fukki yiw boo ne asalaamualeykum wa rahmatullah am nga ñaar fukki yiw boo ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu am nga fanweeri yiw waaye salaamaaleykum kooku moom du loolu baaxul kenn du ko nuyoo la ma góor ga euh, sëñ Mouhamadul amin waxoon ne ma Sénégal ba léegi mënaguñoo nuyoo te wax na dëgg sëñ Abdoulaye wallaay salaamaaleykum moom musiba la parce que laa boobu xarfu naf la day dàq te asalaamu aleykum mooy maa ngi leen di ñaanal jaamu yàlla wàcc ci seen kaw yow itam nga delloo ko wa aleykumu wa rahmatullahi barakaatu waaw waaye savaag nu mu demeek naka affaire yeeg nu mu fa tëddeeg jaafuwaay yooyu yëpp <laughs> du dara waaw du dara ndeysaan barakallah euh, ñu jaajëfal mbokk moomu sëñ Abdoulaye ñu ngi ñu signalé ni liñ ñu cërale woon ci waxtu wi tabarakallahu jeex na euh, ñu yem foofu rek kon mi euh, moom daal Euh, li ñu jàng tey mooy ne euh, ki nga xam ne daal dañ ko fase jigéen la donc ba keroog iddaam di jeex euh, jëkkëram moo ko war a jox dépense moo ko war a dëkkal ba keroog nga xamante ne ni iddaam jeex na waaw bu fekkente ne nag ki nga xam ne tabaarakallaahu dafa ëmb dégg nga moom iddaam toujours mooy mu wasin su ko defee buñ ko fasee du tee dañ koy dëkkal dañ koy jox dépensam ba keroog muy wasin ak jàmm su boobaa la iddaam jeex bu fekkoon borom këram dafa faatu bàyyi ko mu ngi ëmb mu waroon a toog 4 mois di jours pour tënj ko bu fekkee am na un mois wasin foofu la iddaam jeex tënj ba foofa la yam jeex na waaw tabaarakallaahu su ko defee rek ñu euh, bàyyi ba dellusiwaat daañu ko gën a yaatal ci kàttan yàlla ak mbaaxam sant bu baax Seydatuna Mariam moo nekkoon ci caméra bi tabarakallah Haaj Pape Cissé sunu soppe nekkoon ci régie bi ak alasan Cheikh Taalif tabarakallah Eliman euh, Fall ndeysaan ñun euh, nuyu ko bu baax seen mbokku daara oustaz Mor Diouf moo nekkoon ci waxtaan wi dig daje incha allah aljuma ji nu jëm ci waxtu wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa رحمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك